tabarakallah seigne wilan, li ngay wax ci bari nañu koy jambat moy buñu teddé tëddee guddi duñu nelaw ak ay rêve yu yu bizarre lu leen di tital rek lañuy gis lu leen di lo rek lañuy gis genn walu guddi gi yépp ci tiitaange la ñuy mais nan lañuy def ah xana li fi mag ñi bàyyi rek gisuma texte bi leer mais siiw na ci sama nopp ñu ne bi wax na ni boy teud basmala nga jang ko ñaar fukki yoon ak benn xam naa daal bisimilah rahmaani rahim foo ko takk passé na ko njëriñam mais ñaar fukki ak benn léemaay la ayatal kursi yi nga jàng ko booy tëdd léemaay la muawidatayni muy falaxe ak naas yi nga jàng booy tëdd léemaay la pour défendre yooyu nga xam ni ay mbir yu bizarre la eh, wax nañ ni tamit loolu ci kutubu asraar yi laa ko gis sooy tëdd nga tooyal sa baaraam bind sa pooju càmmooñ aadama c'est-à-dire maam aadama bind ci pooju càmmoñ bi maam xawa da nga bind aadama bind xawa nee na loolu dina nekk protection boo xam ne itam mën la musal ci yi ngay faral di gént te mu nekk yu yu yu yu raglu su ko defee itam am na ñoo xam ne seen problème mooy tahajjud borom bi dafa wax ne wa minan wax yonent bi ni ko wa minan naasi wa minal layli fa tahajjad bi naa naafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda di ko jox ay ndigal ci ni ko te da ba guddi nga ni bërit daal di julli ay la amaana boo ko defee di nga am maqaama yu kawe kawe yoo xam ne di nga ci sant lool lool lool ñu di ko roy ci bi waaye am na ñoo xam daf leen jafe parce que seen yaram day diis ba du ñu mën a jóg wala boog nelaw fëkk leen ba duñu mën a jóg mais boo demee ci téere bi ñuy wax bu weetu mustafid ci wàllu tarixa bi lay jàngale borom a nga cay jàngale nee na dinay faral di gàllankoor nit ci jóg guddi mooy bàkkaar boo def ci bëccëg bi te jégguloo ko ba pare tëraloo ko mu nekk poids ci sa kaw wala nga lekk-lekk gu bari lool mu soppali ko deret di sa yaram teel laa jug mu diisal sa yaram mais nee na pour fa loolu nee na booy tëdd nga sangu boo jullee gee ba pare nga sangu ni ñuy sangoo di diisal yaram boobu dina wàcc soo ko mënul nga jàpp booy tëdd nga xam ne booy tëdd fokk nga jàpp leneen dina dindi diisal yaram boobu. nee na su fekkee nag da nga bëgg a yeewu heure bu la neex heure tel te non seulement dinga nga yeewu ba pare nga mentu li naaw ndax léeg-léeg nga yeewu heure bi nga bëgg a yeewu ndax sa réveil moo lay yee waaye da ngay daal di wëlbatiku daal di koy couper daal di tëddaat waaye pour nag réveil bi mystique la alquran la da yee ba pare nelaw yi day mel dafay naaw doot nekk ci sa ci sa jëmm te mooy sa aay bi mujj ci sutul fii booy tëdd nga jàng ko ñaan sa borom mu yee la heure teel boo ko defee di nga yeewu heure ba te nelaw yi day naaw tabaarakallaahu mag ñi wax nañ ni eh, boo ko boo ko boo ko boo ko taree booy tëdd heure bu la neex nga yeewu innama ana basharum mislukum yuuxa ilayya أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا موي آية بمجد سوتو كهفي بوي تد نغا تاريكو ني يالا ييما ارتل ارب بن سيكوند دو تي توب تنغ مين لي داي ناو لول موم لا نخ ريفي ميستيك ريفي بي نغ دي سا تليفون ولا مونتر ريفي شيطان دو لبا سوكو بروغرامي بور مو ييلا 3 دي ماتين بو ني تارارار da nga daan tourner ni ci tegg sa loxo ni kon naaj mu coupé nga wëlbati ko waat jël beneen position foofu nelaw yi ngay nelaw foor gi muy foor loolu liggéeyu seytaane la kon tabaarakallaahu yéen yàlla gën ñu doole defal jàmm defal ñu dégg ak topp